الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom mi ñu war a sax di ko sant ci lépp loo xam ne nekk nañ ca ñi ngi seede na moom dong mooy yàlla bi yeyoo ñu koy jaamu seede na muhammad ndawal ndaw la bu mu yónni woon ci ñun di ñaan mu julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmiddin ñi ngi màggal suñu boroom màggal gu amul app di seede na moom dong mooy yeyoo jaamu ñi ngi koy sant sant gu amul app ey yéen mbokk jullit yi weeru koor bi ñu doon wettili day mi ngi nii dem na weeru koor weeru alquran weeru taxaw weeru mbaax weeru jokk mbokk weeru jokk ñañu tani loolu day mi ngi nii suñu borom defoon na ko at ay bis yu néew romb na ña ca gañe gañe nañ ca yàlla yàlla boole ña ca ña ca sàgganit sàggan nañ ca lu ñu munta dabooti ay yéen warkat yi xam leen ne yéen a ngi ci bis bu mag lii mooy sunu iit bi nga xam ne képp koo xam ne wóoroon nga na nga waroon a woori dana am kontante bu rëy boo xam ne yàlla dana lu ko defal sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom day mi ngi dig aji woor ñaari mbégte benn mbégte bi mooy boo wooree ba pare da nga bég na am moo tax tey yàlla def ko bisu mbégte tegoon nañu weeru koor woor nañ ko waaye mu ne mbégte ba gën baa mag mooy bis boo dajee ak sa borom bam fay la sa fayu koor keroog nag ngay gën a bég ndax borom boobu mboolem jëf yépp daf naan malaaka yi dem leen fay samay jaam amma bu dara desul dul koor mooy woo ay jaamam ya doon woor fayal leen boppam yal na yàlla boolu ñu ca ñooñee mbokk na ngeen bég koor gi ngeen jóge ak naafili yi ngeen jóge mi ngi leen di xaar yowmal qiyaama heure boo taxawee sa borom mu lay atte nga geestu gisoo ndey gisoo bàyyi gisoo sëriñ gisoo avocat koor dana jóg ne ay yàlla baal ko man day maa doxoon digganteem ak bànneexu bëccëgam alquran jóg ay yàlla baal ko man day maa doxoon digganteem ak nelawi guddeem ci loolu sunu borom nangu la nga xam ne mooy seen ramm bu yàlla nangoo seen ramm ñu daal di lay bégal ci ne yow mucc nga ci sawara te wallahi loolu mooy njëlbeen xéewal ba gën a rëy ci àdduna mooy ngi mucc ci sawara gannaaw ba suñu borom jox la sa téere nga ubbi téere bi mu lay bégal ci ne kat yow yaa ngi war a dugg biir aljanna su ko defee suñu borom nee na kooku dana dem yëkkati ab téereem góor la wala jigéen won ko mbooloo mu yépp ne leen xool leen man de réussir na suñu borom nee na la koy xaar muy àjjana joo xam ne dafay sax ba faw bu ko defee ñu ne ko lii day la nga jiitaloon ca bis yu jëkk ya mooy fayu lii ay la nga jiitaloon ci àdduna àddina boobu sunu borom nee na man day sama jaam yi maa ngi leen dencal loo xam ni ay bët musu koo gis ay nopp musu koo dégg kenn mënul xalaat ba xam lu mel noonu sunu yeneen alayhi salaam ne déglu leen la yàllay wax nee na kenn xamul la leen yàlla dencal ci lu leen di bégal loolu moo tax ba dañ ne mbokk ajjana xatta malaaka yi gën a kawe ci kaw asamaan la yàlla dencal ci waa ajjana sax wunu leen ko day nekk benn surprise yowmal qiyaam boo xam ne day bett malaaka yi bett nit ñi bett jinne yépp yàlla nañu yàlla boole ci ñi koy dëkkee mbokk allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walilahi alhamd ay yéen mbokk yi nga xam ne da ngeen doon woor ñi ngi leen di félicité ci seen koor gi ay yow mi yàlla wërsëgaloon nga tuub ci weeru koor ñi ngi lay félicité ci loolu xamal ne képp ku woor weeru koor nam ko yàlla santaane mboole mi bàkkaar yi mu jiitaloon yàlla baal na ko ko waaye nag nga la way xamal ne suñu diine ji diine ji du diiney événement bal diine ji diiney du sax ak jokkoo suñu borom la ba faw duna rek ne def naa ak jaamu yàlla pare naa ci bal julit mooy ki nga xam ne moo engagé wu jël bakkanam jox boroomam jël dundam jox boroomam sunu borom ne ay yow julit neel sama julli yi sama doxalin yi sama dund sama dee lépp jagleel naa ko yàlla jalla wa ala lépp loo xamee ne yaa ngi ca ngal la way xamal ne man day su ma demee ca commerçant ba man day jaamu yàlla laa bu ñëw ci marché bi su ma demee ca usine ba jaamu yàlla laa bu ñëw ci usine bi su ma tukkee bitim réew jaamu yàlla laa bu tukki bitim réew ay kon nga xam ne jaamu yàlla gi dafa war a sax ci yow ci jamono ju nekk wala place bi yépp waaye dina rek dama naan dama ko def weeru koor wala dama ko def jamonoy acc mbokk su ngeen sante yàlla yàlla dolli leen sunu borom ay xéewalam du jeex te nee na bu ngeen sante ma dolli leen sunu borom ubbiloon nañu bunt bunt boo xam ne jegeel nañu boppam ci weeru koor na am aka bari woon gaa yu sàggana woon jàkk yàlla yi nga gis leen ñi ngi koy jëkkante aka bari woon ñu sàggale woon téere borom bi ñu gis leen ñu koy jëkkante loolu nag yàlla moo lay mosal cafka ak jege yàlla moo tax jaam xam nga leen mooy jege sa borom borom boobu nga xam ne nee na bu ngeen may laaj man de ku leen jege la kooku nga xam ne moo yor sa dund moo yor sa dee moo yor sa xéewal kooku nga xam ne moo la xam xam la lay jëriñ kooku nga xam ne moo la mën a wallu foo mën a nekk borom boobu ak jegewaayam ngal la waay moytul di doxale kenn sa diggante ak moom képp koo yaakaar yàlla moo la moo ko gën a jege koo yaakaar yërmandeem yërmande yàlla ëpp ci moom képp koo yaakaar am na kattan moo mënu la même la gën a néew ci poussière borom boobu mbokk jege gi nga ko jege ci weeru koor dafa war a nekk loo xam ne lu lay alimenté la ba ba beneen koor di ñëwaat nga jokkoo ak sa borom ay yéen mbokk julit yéen a ngi ci bis bu mag bis boo xam ne sunu borom yàlla bu ñëwee dana yónni malaaka yi ñu taxaw ci mbedd yépp comme ni nga xamee ne bisu ajjuma dana yónni malaaka yi ñu taxaw ci buntu jumaa yi di bind waaye bu dee bisu it ci mbedd yépp la yàlla di yónni ay malaaka su ko defee malaaka yi di woo julit ñi naan leen ay yéen julit ñu doon woor génn leen ngeen jëm ci borom bu bari yërmande bi génn leen ngeen jëm ci borom bu tedd bi yéen ñi nga xam ne dañ leen a santoon woor ngeen woor ñu sant leen taxaw ngeen taxaw ñu santoon leen ngeen joxe seen alal ngeen jël ca joxe kaay leen nag tey mooy bisu joxe prix yi mooy bisu joxe pay yi bu ko defee suñu borom yàlla subhanahu wa taala buñ fa jógee mu am aji woote ji woote ci kaw asamaan daal di ne eh yéen ñi nga xam ne ba ngeen woore ba pare daje ngeen julli ñaan seen borom dellu leen seen kër ya ngeen doon ñoo xam ne ñu jub lañu dellu leen seen kër ya ca xam leen ne mbool mi bakkaar yu ngeen amoon yàlla baal na leen ko yàlla yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca ñooñee ay yow mbokk julit xamal ne weeru koor day mi ngi ni dem waaye ki nga xamee ne mooy suñu borom jalla wa ala mooy ki nga xam ne moo sakku ci ñun ñu sax ci ay naafila gannaaw farata yi mu ne sama jaam di dañ di ma jege ci ay naafila gannaaw farata yi ba ma far ko bëgg su ma ko bëggee maay doon ay noppam yi muy déggee ay bëtam yi muy gisee ay loxom yi muy jëlee ay tànkam yi muy doxe lu mu ma ñaan dinaa ko ko may bu sàkkoo ci man ndimbal dinaa ko dimbali bu defee bakkaar dinaa ko baal ay yow doomu aadama bu bu lompañ bi ay yow doomu aadama bu bëri ay soxla ak i tiis yi ay doomu aadama soo amee buur bu màgg boobee taxaw di la woo ci woote bi ngal la waay bu leen nekk di ko sàggane góorgóorlu leen ci lu ngeen man ngeen sax ci ci la nga xam ne mooy ay nawafil koor mi ngi nii passé na waaye xam leen ne bu koor passé it la araamoon avant koor mi ngi continué araam ba tey lii yàlla farataaloon avant koor farataal ko ci koor mi ngi nekk farata gannaaw koor ba tey waaye suñu borom ubbil na leen yeneen buntu koor yonent bi alayhi salaam nee na képp koo xam ne koor gi passé na nga woor ci weer wi ci teg muy shawal juróom benni fan ku mel noonu day day mel ne année bi yépp da ko woor alhamdulillah ñi ngi ànd ak yenn ci borom xam-xam yi ne hatta jigéen ñi nga xam ne dañoo amoon ngant su dee ne mënuñoo boole fay seen bisi yéen leboon ak shawal boobu man nañoo fay man nañoo woor juróom benn fani shawal ci shawal balaa romb amma fay bisu koor gi moom yàlla may ñu leen ci délai onze mois fukki weer ak benn heure bu ñu mën nañu daal di koy fay gannaaw loolu mbokk julit suñ borom ubbil nañu képp koo xam ne weeru koor jot na beneen weer jot na nga woor ci ñetti fan yaa ngi mel ne ku dëkke woor su tombeeg fukk tre fukk ak ñett ñeent ak juróom moo gën waaye noo ko mën a woor ci ci ci ci weer bi yépp rek woor ci ñetti fan yaa ki woor weer bi yépp yéen a yem gannaaw loolu suñu borom yoonal na ku man di woor altine wala alxames suñu borom yoonal na la nga xam ne mooy arafat ashura ak fukk fan yu ibbi tabaski yi yépp kon da ngay gis ne suñu borom yoonal na ko mbokk julit li ngeen mii noon ci biir biir koor gi mooy dajaloo di naafila ci jàkka yi loolu day ñi ngi koy yoonal ci koor waaye amma taxaw naafila koor ak budul koor ci yem ngal la waay continuer leen loolu rakk yi ngeen doon julli ci biir ramadan bi ci jàkka ji dee leen ko def seen biir kër yi même bu doon qul wallahu ahad kese nga mën jullil juróom-ñetti rakka gannaaw ba nga def shafa ak witre te xam ne liñ gën a yaakaar ci la bokk ay yow mbokk julit moytu leen seytaane day am na ñoo xam ne rëccoon nañ ko ci weeru koor waaye ba weeru koor passé rek mbaalaat na leen nga gis lenn lu bari ci sunu ndaw ñi weeru koor ña nga woon ca jàkka ya amma weeru koor passé na ña nga commencé sàggane seeni julli bu la neexee julli bu la neexee duñ julli mbokk xamal ne ku mel noonu day nekkatul ci biir julit képp koo xam ne du taxawal julli suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na kookee ab yéefër la mu ne aqimu salata wala takunu min al mushrikin dee leen julli ci bañ a nekk ay bokkalekat yonent bi alayhi salaam ne suñu diggante gi yéeféer yi leen doo nga fi dox muy julli képp koo xam ne màbb nga julli léegi yow génn nga lislaam yaa nga ci yéeféer ya gannaaw ba xam leen ne dunduk àdduna gi mbokk lu gàtt la lu gàtt la naam boo ci nekkee di nga jàpp lu gudd la waaye suñu borom nee na waa alaxira buñ jaaree ci bàmmeel ba taxaw ci place bis penc nga xam ne dana duré juróom fukki junniy at dañuy jàpp ne àdduna benn heure lañ fi defoon yawma yaxshuruhum ka an lam yalbasu illa saata min nahar da ngay jàpp ne benn heure nga def àdduna kon mbokk heure boobu muñ ko ci jaamu yàlla ngiree nga am texe goo xam ne du un million du un milliard d'années waaye dafa nekk ba faw moo gën nga bànneexu ko ci bànneex boo xam ne dalay saxal sawara ba ba faw gis nga weeru koor tere woon na dem na gis nga nim gaawee gis nga sa dund gi bis boo deeyee noonu lay mel loolee kon ngeen bàyyi ci xel bu baax te xam ne adduna gii du kër immeuble yi taaru yeeg oto yeeg taaru yeeg mbokk lépp poussière lay doon dañ lay mas a takk ba nga dëgër dugal la ci pax sa kër dëgg dëgg dëgg moom mooy alaxira ngal la waay waajalal kër googu liggéeyal kër googee xam leen ne képp koo xam ne nii yaa ngi sax ci lu baax suñu borom utal na la ñaari garanti dana la may dund gu tey fii ci àdduna ca boo ñëwee alaxira mu tabbala aljanna comme ni nga xam ne noonu la ko digale mu ne ku def lu baax góor ak jigéen ñaar yi mooy la nga xam ne moo koy xaar sax leen ci def lu baax muñu leen mbokk léegi mu jeex muñu leen ni ngeen muñe koor jeex muñu leen léegi dund gu jeex te it ngeen xam ne garanti bi gën a rëy boo yóbbaaloo ci àdduna garanti bi gën a rëy boo yóbbaale àllaaxira mooy ragal yàlla suñu borom yàlla mu ne wa man yattaqi llaha yajallahu maxraja ku ragal yàlla mu may ko génn waay tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa li gën li ngeen di yóbbaloo yawmal qiyaama mooy la nga xamee ni mooy ragal yàlla ay yéen mbokk julit yi ñu ngi leen di ñaan ngeen tëje seen koor gi ci baril jéggulu seen borom jéggulu yàlla day day far say bakkaar day tax yàlla bëgg la waaye jéggulu yàlla day dindi ci yow ak rëy yonent bi alayhi salaam bépp jaamu yàlla bu mosaan def bu paree da koy tëju jéggulu yàlla xam ne kat yàlla yii lii de yaa ma ko santoon def naa ca la ma man la ca des yàlla yàlla na nga ma ko jéggal nga bañ caa gis sa bopp bañ caa rëy rëy rëylu ndax xam ngeen ne julit la nga xam ne moo gën a màgg ci moom mooy moom du ne def lu baax waaye la gën a màgg ci moom mooy sellal lu baax loolu tax suñu borom mu ni alladina yuxtuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yarji'un julit ñi dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne leneen yàlla santoon def nañ ko waaye nag ñi ngi wëlbatiku di tiit ndax yàlla nangu na wala yàlla nanguwul yàlla yow rek yaa xam ne nekk ci biir xoli jaam yi yaay nangu lu la neex yaay xañ ku la neex yàlla nag ñu nangul koor gi ñu jóge yàlla yow rek yaay yàlla kenn yeyewul ñu koy jaamu ko dul yow yaa ñu santoon ñu woor gannaaw nga ne nañ la ñaan nga may ñu yàlla ñi ngi nii dajaloo di la ñaan yàlla sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day moo ñu digoon ne bu it jotee na ngeen génne seeni jànq seeni jeeg ki gis baax ki gisul baax yépp ñu dajee fekk ñaanu julit gi ndax lu ngeen ñaan yàlla may leen ko yàlla ñu ngi nii di la ñaan yaakaaruñu ko dul yow ñi ngi fi ñëw ak bakkaar yu dul jeex yàlla yàlla na nga ñu ko jéggal ñi ngi fi ñëw ak ay njàqareek tiis yàlla yàlla na nga ñu ko teggil ñi ngi fi ñëw ak ay feebar yu ñu jaaxal yàlla yàlla na nga ko saafaral yàlla subhanahu wa taala ñi ngi ñëw di la ñaan nga barkeelal ñu suñu dund ñi ngi lay ñaan nga rafetal ñu la nga xam ne mooy suñu mucc ñi ngi lay ñaan nga saxal mbaax ci képp ko baaxoon ci ñun képp koo xam ne weeru koor bi jëlal na ca la lënka wërsëgal jox say jaam yàlla na nga ko wuutalal lu gën la nga xam ne moom la joxe ay yow yàlla sa bépp jaam boo xam ne sonnoon na ci julit ñi ci weeru koor na doon suñu waa jàkk ji ña nga xam ne ñoo koy taxawu ak jigéen ñu doon togg ak ñu mën a doon ak fu ñu mën a nekk pekku jant ak sawu jant ay yàlla yàlla na nga leen nangul seen jëf joojee yàlla na yàlla sàmmal ñu suñu réew yàlla na yàlla dooleel ñépp ñi fi woote jëme lu baax képp koo xam ne yaa ngi nekk ci réew mi di woote jëme ci ak réer yal na yàlla nasaxal sa woote yal na yàlla feeñal say mbir yal na yàlla toroxal la ba nit ñépp xam loolee yal na yàlla subhanahu wa taala yónnee ñu jàmme aduna ak jàmme alaxira suñu ndaw ñu yal na yàlla teete leen ci ngërëmam yal na yàlla subhanahu wa taala yëkkati ay darajaam yal nañu yàlla boole ci nga ci ëllëg yowm alqiyama ca ajjanay firdawsi al aala moom mi nga xam ne ci kattanam la ñuy boole ci la nga xam ne mooy jàkka ji mboolem jaamu yàlla yi fi def yàlla yàlla nangul ñu ko yàlla nañu yàlla musal ñu gis suñu bopp ci lépp loo xam ne ñu ngi koy jëf wala ñu di ko wax yàlla subhanahu wa taala ñi ngi lay ñaan nga yokk suñu cofeel ci yow yokk suñu cofeel ci sa yonent yokk suñu cofeel ci la nga xam ne mooy sa diine ji yàlla nag ñu boole sa jaam yi la bëgg nga bëgg leen yàlla nag ñu boole sa jaam yi bëgg ay malaakaam sa jaam yooyu nga xam ne malaaka yi dañuy dëkk ñoom fil firdawsi al aala allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين